yaa ay combat taxaw man li ma lay jëkk mooy combat yi taxaw yëpp ren ci saison bi ban la ci jamaykee boo xam ne tey bu jamaykee yoroon xaalis da koy tëgg ma yoroon xaalis dama koy tëgg benn bi premier combat Sa Thiès Boy boobu ndax combat boobu dafa nekk combat boo xam ne njar ndéem la te mu taxaw man dama see gis sama bopp yàlla dafa def booy ñaa bëreeg guy gi daan ko dimanche lundi Sud FM di def benn émission gars yi dugg fa ne booy ñaa ci kaw ci kaw man timit man woote fa fekk ay kilifa ñoo fa doon def émission may leen booy ñaa Sa Thiès mënuñu bañante dañuy bëree am na kilifa gu ne man ñoom duñ bëree ndax ñoom ñaar kenn waru sa bëreeg sa morom dañoo war a bëreeg ñi ci kaw force may leen fu ñu jaar ñu bëree seen biir kenn dem kenn ralentir ñoom ñu bañ sama wax jooju yàlla def xam nga affaire bi ñëw am di wax ne làmb moom loo gis rek lu nekk xel puso bu réer la xale daf koy for mag daf koy far waaye ñëpp xam nañ ne Boy Niang mënul dem ci Balla Gaye te bëriwut ak Sa Thiès Sa Thiès mënul dem ci kaw te bëriwut ak euh, mhm. bi dama lay laaj boo ko doon analyser en tant que technicien ñoom ñaar ci côté bëree bu dee bëree ñoom ñaar kan moo ci am avantage si bëre bi kan moo ëpp avantage Boy Niang 2 loolu fu ma teg loolu mooy booy Niang mosul gañe comme musul perte combat tay lay dee. mooy loolu mooy ki ngay bëreeg tay ki muy bëreeg tay mu raay ko musu koo perte. dafa am combat yu bëri musul bëre boo ñaaw musul perte combat tay lay dee. combat yu mu perte yëpp tay mu raay tay mu raayee la perte. mooy ñoo xam ne nii boo gisee moo waxee côté boobu mooy booy ñaa combat yu mu perte yëpp dañ naan ñii tey booy ñaa ray leen hmm. waaye tey mbër mi ray booy ñaa booy ñaa ma gis mu perte ko si carrière hmm. buy Sa ko kenn dax koo bëree dax ko bëree yombul kenn dax ko bëree assuré na li muy def man na bëree gaaw na am na fulla am na fayda bot boo gisee may la booy ñaa moo gën a wóor mooy booy ñaa du maye dara te loo ko may mu jël te li Boy Niang gën a bëgg ci làmb loolu laa gis Sa Thiès di bëree arbitre soufflé nga ne ba xër ñet ñëw ci kawam man loolu laa gis Sa Thiès di te loolu moo arrangé Boy Niang ci làmb sama gis-gis ndax ñi ma gis ñu def ko yëpp da na a daan Sa musul am combat tey Sa Thiès dee man gisaguma ko si lu ma siifur. bëri yi mu bëree yëpp maanaam tey kuy senegale boo jëloon sa xaalis di ko teg doo ko teg si yeneen mbëri benn combat la fi am mooy combat boo xam ne nii te nit ñi sax joxuñoon kooku favor cent pour cent ñu bëri tey bu ñu doon teg rek si Sa Thiès lañ doon teg muy koo xam ne ñu ay naataangoo la ñoon kenn laalu toon suuf muy moom Malick ñaa daf ko perte kon moo tax combat bi man buy benn point sax booy ñaa mooy favori ndax booy Niang dafa génn ci combat yoo xam ne senegal gi yëpp dañ ñoon tey dañ koy rey mu daan ko ci mel ni contre Garga Mbossé rek bu mu tuusee stade bi yëpp dañ ne ko farak Boy Niang na génn hmm. contre Baye Mandione contre Guy gi hmm. bi mu ñëwee ci stade bi ñëpp nee nañ xamoon nañ ne Boy Niang moo gën a nekk ci forme moo gën a li waaye ñu bëri ñu ngi xel ne waaw comme Guy gi dafa daan nees daan Ama Baldé est-ce que Boy Niang war na ko mën a téye waaye keroog bi mu ñëwee leneen la wane hmm. kon tamit nekk koo xam ni tak du maye dara te lépp lu muy def da koo assuré. ku dàq bëre ñoom ñaar. ku dàq bëre nag foofu dina naqadee wax hmm. ndax ñoom ñaar bokkuñu système mu bëree hmm. booy ñaar moo gën a wóor bëree hmm. waaye saa sa gën a gaaw bëree waaw gën a wóor bëree nag ak dàq bëree bokkul waaw booy moo gën a wóor bëree ndax booy ñaar lépp lu muy def rek daf koy assuré du maye dara du caaxaanee dara gars yi sax dañ ne dafa ragal waaye ragalul. waaw ragalul ndox mu sedd muy rey teeñ la waaw. Sa gaaw bëreem boobu la ci gaaw bëreem boobu noonu mhm. fooram la Sa moom fu mu jàpp mbër mhm. lenn rek lay tàqaleeg moom arbitre bi seex soufflé wala nga laal suuf mhm. moo tax moom gaaw bëreem boobu tamit fooram la booy Niang est-ce que dina nelaw ba Sa Thiès yegg ko foo xam ne nii du ci génn est-ce que Boy Niang dina bëree système mu bëree boobu. waaye bu mayee Sa Thiès tamit ba Sa Thiès jàpp ko moom ah dina na dina dina métti ci moom daal mm. waaye daal ni muy bëree nii ah ak li Sa Thiès di wane ci làmb man mm. ah bu ma doon joxe favori dinaa joxe cinquante et un mm. quarante